ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي
عليه وصحبه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ñaan suñu boroom ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi mu def suñu daje bi mu nekk daje bu muy barkeelal waaye jëf yi ni ci def mu nekk jëf yu muy gërëm bu ñuy teqalikoo it ñu teqalikoo ci loo xam ne day méngoo tawfiqi suñu boroom ak yërmandeem yonent bi day alayhi salaatu wasalaam bégal na ñu gëm yàlla mbégte mu rëy ci sababu daje boo xam ni la ko wundu mooy di fàttalante ak a nafar mbir yu jëm ci suñu diine moo xam alquran la ñuy jàng muy téere yàlla bu tedd bi moo xam sunna la ñuy jàngale sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yooyu lu mu ca mën a doon mbooloo mu daje te loolu tax leen a jóg rawatina buñ ko defee ci barab bu sell ba mel ni jàkka yooye sabab lay doon ci yërmande suñu borom wàcc ci seen kaw borom bi tudd leen fa moom te loolu mbokk yi ngëneel yu rëy la martaba ju rëy la suñu borom subhanahu wa taala tudd saw tur di la béggee ca barab yu kawe ya nga xamante ni malaaka yu sell ñoo fa nekk loola ngëneel la lu kawe te rëy yàlla na ko suñu borom defal nu ko suñu daje bi insha allah comme ni ñu ko mbokk yi sàkko woon ci ñun bind la boo xam ne dinañ koy jéem di def ci ay bis ci weer wi jubluwaay bi mooy teetlu gu ñu teetlu ni bariwaana ay yëf-yëfaan ci njàngale sunna yi yoo xam ni dañ ko waroon di beral bindi boppam waaye doyut rek nit ci déglu ci wenn waxtaan wala mu jàng ci ñaari xadiis ndax jaamu yàlla ci boppam du màgg man waaye jaamu yàlla màgg jàng doog a man te loolu tom bu am solo la ñu war koo xam jaamu yàlla ci boppam nekkul aada joo xam ne màgg man la waaye jaamu yàlla nit ki day màgg jàng doog a man te njàngale yi lislaam yi ci boppam yëpp soor yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf daan toog ak saxaaba yi ridwaanullah alayhim di leen jàngal di tooyal seen xol ci meroon mën a gii ci fàttewoon mën a fàttaliku ci juumoon mën a jubbantiku ci wengoon mën a joyantiku yooyee sabab lay doon ci ngëm yàlla nit ki mën di yéeg baynal xiin wal aaxar ndax kat xam-xam dafay dolli ngëm waaye lumière la buy leeral xol lépp lislaam nag dañ ko war a jàng xam ko ndax lu ne ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla yooyee nit ki bu ko defee wut na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defee dafay rate dafay rate ñaari yoon rate bu njëkk gi mooy da ngay dem ba yëg ni yow mii la nga bëggoon ci dund ko neex xamoo ko kon kooku ci àddina la rafet ñaareel gi mooy da nga ci doon sàkku yiw nga dem ba ca sa borom fekk kenn du la fay ndax li nga def kenn defloowu la loolu moo taxoon te jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon nañ bari ay dajeem ak ay saxaabaam di leen jàngal waaye nag jigéen ñi ci seen jëmmi bopp ñoom demul woon kenn demul woon ñu def te xam naa Aïcha radiyallahu anha daf doon wax ne yàlla na yàlla yërëm jigéen waa lansaar ndax ñoom day am kersa te réewu leen laaj question yi nga xam ne léeg-léeg sax day yu sensible lool ci seen wàllu diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na benn bis am mbooloo ci jigéen ñi daal di ñëw ni ko ñun kat daa am yëf yu nu seetlu mooy sa jataay yi ëpp yi ngay am góor ñi nga koy amal kon dafa mel ni ñun bokkul yonent bi ne leen aan kay ci ngeen bokk te la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam wutale daje dajeeg ñoom di leen jàngal di leen nafaral kon jigéen ñi yàgg nañoo yittewoo seen diine di ko jàng ak di ko nafar bunt bii nag nga xam ni moom la ñu bëgg a tijj bunt la boo xam ni xëy na nun yàgg guñ ci daaw bi ñun ci am ci fan bëreegul waaye fan yore lu ñàkk ñàkk ñàkk bari dafa mel ni dafa bokk ci mbir yi ñu daan wax mooy tomb yu mel nii moom mat naa wutalu bind toog di ko jàng ndax dégg rek du ci doy déglu kaset rek du ci doy tomb boobu mooy tomb bu jëm ci wàllu sëy ak la nga xamante ni moom mooy lépp lu ca lislaam jàngal sëy di di jaamu yàlla gu rëy boo xam ni ni ko nit ñi foogee romb na ko ndax mbokk yi ñu yëg ni sëy jaamu yàlla la goo xam ni nit ki da koy jaare pour mën a jege yàlla maanaam mbir mi daa romb mi dem bànneex rek waaye jaamu yàlla goo xam ni nit ki da koy jaare pour mën a jege boromam subhaanahu wa taala kon ki ci sóobu na yëgaale ni sóobu na ci ndigal ci yàlla sóobu na ci toppandoo yonent bi ak yonent yi ko jiitu woon alayhim salaatu wassalaam te it li gën a kéemtaane mooy sëy occasion dajale tiyaaba la ci dugg ci néegu sëy bu objectif am baaxee mu tege ci yoon wi mooy ëpp chance ci am tiyaaba ci tàbbigul ci néegu sëy ak kum mën a doon comme bu am solo nga bu moo ta bàyyi xel ci tàbbi ci néegu sëy te jaar ca yoon wa moo nar a ëpp tiyaaba téeméeri téeméeri yoon ci tàbbeegul ci néegu sëy donte jaar na ca yoon la ko waral mooy occasion yi ci tàbbi ci sëy am su dajale ay tiyaaba ci tàbbeegul ci sëy amul occasion yooyu firi na bi ma ci mën a joxe mooy góor gi bu yëkkatee joxe la ñuy tuddee dépense te sellal fa muy jaar loolu ci tiyaabam lañ koy rëdd jigéen ji bu jëlee dépense mu dem marché mu ñëw togg loolu ci tiyaabam lañ koy rëdd bu amee doom di ko toppatoo loolu ci ay tiyaabam lañ koy rëdd nampal gi muy nampal doom ci ay tiyaabam lañ koy rëdd toppatoo gi muy toppatoo borom këram ci ay tiyaabam lañ koy rëdd même ànd ak borom këram ci tey ci ay tiyaab lañ koy rëdd te yëpp mbokk yi ay xadiis moo ci ñëw yu wér ah loolu di ma dama jàpp ku amul xel te dégg li ngay yëg mooy ndekete kat li ni li ñu wax ni ku tàbbi ci sëy moo ëpp chance ci gën a bari tiyaaba ci tàbbeegul ci sëy loola moom doo ko gëmantu waaye danga koy gëm beneen bi ci des mooy bu yàlla wërsëgalee nit ci tàbbi ci sëy njaboot njaboot googa ñu màgg nekk ay jaamukati yàlla yëgal ni am na pourcentage bu ñu lay rëddal sa seen jaamu yàlla ndax yaa sabab ñu ñëw ci kaw suuf ala sabil misaal nit ki am doom bu jigéen wala doom bu góor wala doom yu jigéen wala yu góor wala nga boole leen ñoom ñaar ñu màgg ñu yar leen ci lislaam xam diine tàmbali nekk ay jaamukati yàlla su mel ne benn waay bu am ay action ci benn société moom ma nga fële di liggéey liggéey ak boppam ni ko cay fay waaye am na ca jaamu yàlla ya doomam di jaamu pourcentage bu ñu ko cay rëddal ndax ab daallu ala al xayri kafaal ci tegtale yiw ba nit ka tege ca lu mu def day mel ni yow yaa ko def yow mi ko ca tegal kon loolaa ngay rëddu di dooleeku ci saw yiw jàpp naa ni kooku bu dee nii la koy jariñee ci àddina kon bu demee àllaaxira dana bari la lool aw yiw fii ci àddina ñu boot googu mën nañoo nekk sabab ci jaamu yàlla fële ci àllaaxira boo faatu woon tey nga bàyyi leen fi dara gënt rëy bàyyi fi doom ju la ñaanal kër gi ñu ko laaj dañ koy miraas séddale ko or yeeg takkaay dañ koy séddale bu doon da ngay tëy kooku day wutiwaat beneen soxna ila axiri waaye doom boo ko fi bàyyee bu ngeen seetloo ci waxin wolof sax da ngay dégg otob diw ba kër diw ga jabari diw ja waaye doom moom doomi diw ji rek ngay dégg moom terme boobu ci wolof rek du soppee da ngay dégg ñu ne doomi lem ci yàlla ji diw c'est-à-dire que kon doom ji moomale nañ ne ko bi ngay dund bi nga faatoo ñu moomale ko kon loolu rek mooy moomeel du wóor moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na su doomu aadama faatoo buumi jokkaloo yi amoon ci digganteem ak borom yëpp naan cipp dagg ba mu des ñett bokk na ci aw walad min saalihin yad'u la nga am doom ju baax joo fi bàyyi mu yëg ni kat sama way jur mooy diw bu jiitu dama xaaral ma ñaanal ko ñaan googa da lay fekk ci bànne bal sax nag léeg-léeg nit ki dana yëkkati ko ay daraja ca àllaaxira te fekk sabab si mooy doom ji koy ñaanal ak di góorgóorlu ci ay jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit dana nekk biir àjjana ci première catégorie ñu dem ba mu yàgg ñu yéegal ko mu gën a kare ñu dem ba mu yàgg ñu yéegalaat ko mu gën a kare moom sax day jaaxle mu laaj waaw lii lan moo ko waral ñu ne ko ah sa doom da nga bàyyi woon ci àddina di moo lay ñaanal di la jéggalu yàlla ñaan yooyaa yegg ci moo tax mu yëkkati say daraja jàpp naa ne loolu mbokk yi bisaara la muy mbégte mu neex lool sëy nag ñu xam ni mooy fondement bu njëkk ci tabax ab société ndax borom bi ni mu organisé tey ci la ñuy jaar pour former société boo xam ne société bi l'islam lay doon su ko defee ngir ñu mën a jubbanti xale yi yar leen ngir ñu mën a nekk ñuy taxawee diine yàlla ci kaw suuf loola mënta jaare ci taxawaalu mbedd waaye ci sëy la mën a jaar lii lépp nag sabab la ci jaadu na kon tomb yu mel nii mbokk yi ñu toog jàng ko njàng mu set nee naa la déglu ci ab kaset du ci doy déglu ci aw waxtaan du ci doy jàng ci ñaari xadis du ci doy waaye sàmmalee ko ci bu leen ku jigéen naka lay sànnee borom kër saa bu xelam demee ci sëy ku góor naka lay sànnee soxnaam labat yan teggin la ko lislaam jàngale ndax lislaam waxu leen def jël leen mi ngi doon def leen na leen neex déedéet labat dafa am teggin yu ko lislaam jàngale fii lay tàmbalee fee la war a yem lii la war a diire lii ngeen war a waxante waru leen a waxante lële bu leen wéet bu leen ànd dem barab tàngam ila axiri ca xeet njàngale yee kon du lislaam lu ni fab leen ngeen dem seet nu mu leen arrangé ngeen defee ko noonu déedéet kan moo dagan nga sëyeeg moom ak ku daganul nga sëyeeg moom taabu demee ba takk jot lan mooy la gën sa takkin ya nga xam ne moom la ñuy takkee ci lu mel ni kan ak yu ko wundu ban programme la jigéen ji war a tër ni bii moom fas yéene naa koo tër su ma amee borom kër lu am solo ngoog lu am solo ngoog mooy nit ci tër ab programme ni man kat su ma woon borom kër bëgg na maa dundee nii ban programme la ko góor ci war a tër ni moom bu amee soxna nii la bëgg a dundee yan xeetu kër nga bëgg a am yan xeetu doom nga bëgg a am yooyu ay programme la yoo xam ne islam jàngale na ko ba teg yan teggin moom la nit ci séq ak borom këram borom kër gi ban wàccuwaay la am ci yow ndax yàlla dafa am wàccuwaay mu am ci yow yonent bi alayhi salaatu salaam am benn wàccuwaay waaye borom kër tamit dafa am wàccuwaay bu mu am ci yow boo xam ne boo ko dee sëy daanaka mooy remplacer wàccuwaay baay ak yaay yan mbir mooy yoo xam ne boo ko defee mën ngaa am ngërëmal suñu borom yan mbir mooy yoo xam ne boo ko defee sa borom kër da nga ciy mer am meram suñu borom jàpp naa ne mbokk yi mat a jàng problème bu amee ci tey naka laay def ndax damay def ku ma seet rek jot nag wax ak moom ndax dama def lu may naqar rek ma reaxi ci saa bi def sama réaction mu jeex yan mbir mooy yu ñu war a muñ yan mbir mooy yoo xam ne kenn du ko muñ dañ koy tag ndax du góom yuy wëy lu jëm ci wàllu fase ak acte ya nga xam ne moom la ca lislaam wax kañ lañ war a fase kañ lañ lay fase même su la fase da nga xam ne nii ma la wax wéru fase gi wéru su la fasee nooy def lan lay lan la ñuy addawoo lan mooy teggi ni edda yooyu yëpp jàpp naa ne mbokk yi am njàng la moo xam ne mu xóot la jàpp naa ne te mel nam ak sax doyu ci te loolu xam ngeen ko mel nam ak doyu ci lii programme la boo xam ne jàpp naa ni bu jaaree nii sabab lay doon ci nit ki kat day mel ni ku ñu yónni fu mu xam parce que bu ñu la yónnee foo xamul ni muy toofee loolu mooy sëy di làmbat daanaka da lay sepp di tap rek di sepp di tap léeg-léeg mën ngaa sepp fekk ba nga sepp foofu kenn waru ko war a sepp kon leeraay bii su amee day mel ni ku xam fa mu jëm ñàkk gee leer day mel ni ku am fa mu jëm ci xam lii daal bi ñu ko gisee ñu jàpp ne kon de wax dëgg yàlla lii programme la boo xam ni maa ngi fàttaliku ay at sa gannaaw xam naa dégg na jege ñaar ba ñetti at doon naa wax mbokk yi ni jaadu na su fekkoon lu war a mën a nekk la formation yoo xam ne dees koy defal suñuy jigéen ci wàllu tey comme ni ñu leen defalee ay formation ci seen wàllu àddina ndax mbir yi kat ni mu jéngee te laajut jooyanti jàpp na ni jooyanti gi la koy faj dooy conférence ak i waxtaan ak i quelque xadis yi ñuy jàng déedéet waaye jooyanti gi mooy bunt bu nekk ñu toog jàng ko lu ca leerut ñu leeral ko lu ca lëndëm ñu laaj ko su ko defee jàll ca la ca des su boobaa ña yàlla baaxee ñoom jëfe yomb leen insha allahu danañ ko jëfee ko yàlla suñu borom defal na am na ñaari yëf nag ba ñett yëf yoo xam ni bunt bi mëneesu koo mëneesu cee soobu lu dul danañ ko leeral ndax daf nuy dimbali ci yoon bi ak ni bi yëpp moom ñoom problème ci wàllu sëy loolu moom ñëpp xam nañ ko tey jii boo demee ci réew yi nga jàpp ne tey ñoo gën a dund diine ñëpp problème ci wàllu sëy su ma ci doon joxe benn misaal mën naa ci joxe ñaari dëkk Égypte Arabie Saoudite xam ngeen dëkk yooyu moom ku leen xam xam nañu dëkku diine lañu donte Saudi moo gën a nekk dëkku diine Égypte waaye seeni borom xam-xam dañoo def ay gëstu gis ne fi mu ne téeméeri tey yoo gis ci dëkk yooyu daanaka lu ëpp juróom-ñaar fukk ya mi ngi ci ay denke ñenk mooy sëy boo xamante ne daanaka ma nga lengaluy waaja daanu mbaa mu àgg suuf waaw dëkk yi nga xam ne ñoom diina la ñuy askanoo bu dee ñoom ñoo toll noonu moom kon waxatuma ñun waaye européens yeeg ñeneen ñeneen taxatut may wax kon kon problème bi dafa bés àddina bi war ngal kat kon am na lu ko waral ñaareel bi mooy jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy gis ci wàllu sëy yii saa day bàyyikoo ci ku góor yee saa mu bàyyikoo ci ku jigéen problème nag saa bu ñu ko amee pour ñu régler ko dañuy delluwaat ci njàngale alquran ak sunna ndax loolu moom mooy tax addina bi jàpp parce que borom addinaa ko wax muy suñ borom dëgg la sax nag kenn ci yéen mën na ni jamono yonent bi sëy yi amoon nañ jafe-jafe ma ne la waaw waaw waaye jafe-jafe yi amoon trois pour cent la woon lii may wax ñu jàng xam nañ ko jafe-jafe yi amoon ci jamono saa salaam boo jàngee histoire bi nga xam ne 3 pour cent la bëri wut woon la ko waral mooy ñoom ñoo gënoon a jege njàngaleem alquran ak sunna ak di ko jëfe moo taxit ñoo gënoon a néew ay problème kooku benn la ci yi nga xam ni war nañ koo xam kon jafe-jafe la boo xam ne fi mu ne jaadu na société yëpp ñu toogaat ci waxtaan bi ñaareel bi mooy soo ñëwee ci suñu biir réew ñun boo demee ci tribunal yi ak yeneen i barab wala ngay déglu ci journal yeeg yooyu da ngay gis ni sëy yi ci jëmmi boppam daanaka da nga yaakaar dara jagatut fi ne lu ko waral mooy ñuy dund lislaam ak ña dund lislaam ñëpp kon foofu wàcc si na ba sunu réew ñun nga wàccaat mu gën a jege nga ñëw ci sunu biir nag ñun ñi nga xam ne yàlla moo ñu baaxi alquran ak sunna ñu koy xeeñtu di ko dund fi mu ne nii moom ñun defe naa damay toog am yàgg dama naan ñun dina am cee problème te ak keneen am na ko yàlla seede na ne li ngay toog par bis ay nit di la woo moo xam ci téléphone moo xam ci texte ci la di la wax ay jafe-jafe ci wàllu sëy man damay toog yàgg dama naan man su ma doon def li ñu tuddee sondage dama naan fi mu nekk nii maanaam téeméer yoo jël ci suñu biir ñett ñett ñett la ci seen sëy jàpp man su ma doon def sondage loolu laay wax te sandu ma ko nag waaw dama natt bu baax gis ni daanaka téeméer boo jël ñett ngay gis ni seen sëy daal moo amul ay yëngatu yëngatu waaw ñun ñi dund alquran ak sunna su fekkee loo toll foofu kon yëf yi kat mat naa xoolaat bu baax moo xam diggante nit ak ay borom këram moo xam diggante nit ki ak ay goroom moo xam diggante nit ak wujjëm ila axiri ñetteelu seetlu bi mooy suñuy problème ñun da di problème yu wuute yoo xam ni néew na njàngale mu mel nii suñu borom yi xam-xam di ko faram pàcc ba mu leer maanaam catégorie nit ñi ñu am noonu la seeni problème wuutee ci sëy soo duggoon ci daara yi tey yi nga xam ne ñooy jàng alquran di ko jàngale wala jigéen ñi nga xam ni ay ah comme ay arabe naan su la ñeen tudd xaw ma waaye daal daanaka la xam ñu jàng arab jàng alquran nekk ca daara yi ñoom problème yi ñuy am ci wàllu sëy du bokk ak problème yi ñu nekk université ak ci lycée yi di am sew-sew boobu lu nu seetlu la su ma ko doon faram fàcc mu gën a leer ndongo yi nekk daara ja di jàng dañoo def seetlu ni wax dëgg yàlla danañ am yarab lislaam léeg-léeg waxuma lépp léeg-léeg danañ ko am danañ mën alquran danañ ko jàng danañ muuru muuraay yu baax waaye boo dukkee ci sëy nag moom duñ mën a sëy duñ mën a sëy baat boobu nga xam ni mooy mën a sëy nga xam ni dafa làmb nit ci nekk jigéen ju mat jigéen nga xam ne lan ko doon dawee ba tax ni di ko takk mu man lépp ñooña duñ ko man li ma defee gëstu damaa seetlu ni dañ leen ko dul jàngal bokk na ci li tax duñ ko mën danañ leen jàngal alquran jàngal lislaam yar leen waaye duñ leen jàngal lu jëm ci mbirum sëy saa saa sax lu mel ni ci wàllu togg ak yu demee noonu duñ leen ko faral di jàngal ba nu man ko lool kon ñooñu loola bokk na ci seen problème nga ñëw ci barabi université wala lii tey nga gis ni jigéen ñi ko nekk ñoom xëy na jonjonte nañu société bi ba xëy na mën nañoo sëy waaye nag doomu aadama mi milieu bu mu nekk di fa dund la fa ne ci ay couleur da koy soppi ci moom du ko yëg mooy xeeti jiit jiit yay ne ca ñoom te mu waroon a am ci mën a sëy du faral di am ci ñoom nangu nooy nangu ak nooy ak ñàkk jom ñett ci melokaana ngi nii yoo xam ne jigéen du ci manqué benn doo jigéen i sëykat doo mën a sëy nangu nooy ñàkk jom yaa ñàkk jom moom koo ko wax xas na la waaye ba mu def ci sa kanamu borom kër ndax ñàkk jëmu jigéen ci kanam borom këram loola nam la nangu mooy yàlla ci boppam moo jël ku góor ki teg ko ci sama kaw lii nag lu mat ngeen bàyyi ko xel yéen xëy na milieu bi ngeen dund dina nga dégg ñu wax égalité dina nga dégg góor ñi jigéen ñi war a tolloo dina nga dégg dañoo toll jamono joo xam fu góor taxaw jigéen war na faa taxaw gis ngeen gis ngeen yooyu bu ngeen ko gëmee bu ngeen ko gëmut mi ngi def ay jeexintal ci yéen xam ngeen lu nuru benn waay bu jógee ca kaw ga nga xam ne seen dëkk amul saaga kenn du fa saaga moom màgg na ba am fukki at ak nangam te du dégg saaga kooku bu déggee saaga luy xew aw fitam danaan xuy mu tiit waaye bu ñëwee ci taax yi tey mu dégg saaga suba mu dégg wu ndey wa ginnaaw suba mu dégg wu baay wa ginnaaw waat suba mu dégg wu lijaay wa xeeti daggi saaga yooyu day dem ba day def place ci xolam bu njëkk xuñ yi gën a am ci xolam bu déggee saaga dootul amati kon léegi même moom bu dut saaga saaga dootu ko mettee mbir mi noonu la dal société bi nag yooyu ñuy def di moromante jëkkër yooyu bu ko jigéen amut du mën a sëy ngeen baal ma nag kàddu gi du xas leen waaye dimbalante la ndax póotum biir néeg la xanaa war ngeen a xam loolu póotum biir néeg mooy bu ñu dajee ñun ñu ne neen ñu seet yi nga xam ne ñooy suñu tawati bopp ñu jëm koo saafara seetlu naa ni ci seeni barab yi pour nga gis ci jigéen ju nangu dafa jafe nangu dina nekkee suuf sànq nekk ay ndongo ca daara ja da ngay gis jigéen joo xam ni mën naa togg togg gi sànq bi ñu nee ci àll ba da ngay gis jigéen joo xam day togg mu tàng borom këram ñëw xas ko ci kanamu nit ñi rusloo ko li ma wax man nekk li mu ko dama koo fekkee xas ko rusloo ko waaye dëkk teg baat ligaay man damaa ngi jéggalu xaw ma ko woon yëguma ko woon baa baal nga ma am wax maanaam wax yu nooy yi muy wax ak wax yu ñàkk certe yi mu koy def ñun sax daawuñu neex parce que bëggum góor di déggee noonu soxnaam waaye biñ demee ba ca biir gis nañ ne ñoo ñaa jur ñu bàcceel na loola daanaka boobu suñu àll wa yéetugut seen boobu ci jàngal xool lam toll ci daa commencé def ay seetlu ndekete jigéen ji la gën a nangu moo lay gën a réussir ci sëy moo lay gën a barkeel lam jur loolu moom ba ma ko commencé seetlu boobu sama àlloo demul seetlu kon nangu foo mu am bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi bu la gëddee buñ la artalee mu ñëw ndax ki la ko def dalaa sañ morom morom sa borom kër mu mag sa borom kër bu dajee ci yow ci mbedd la ñu lay artale kii da koo sañ moo tax mu def donte nag yoonu melokaan bi yu góor war a def waaye mu ñal ndax loolu loolu la ñuy sëyee loolu nag ab bind la insha allah am nag wàll ca bind yi beneen bi ci des mooy nooy bu ngeen seetloo yéen ñii bu ma leen yéen ñii nag bu leen jàpp ne aw xas la dee dañuy defar rek nooy dama gis ni dafa des tax na mën a sëy gi des yàlla dafa bind góor dëgëral ay këram réyal ay përëgëm fooral baatam te xuural ko génn ak buleem taxal koy mustaas ak sikkim mu yor melokaan woo xam ne boo ko xoolee day góore dëgër kënn def day góore gis nga melokaan yooyu bu ko góor ñàkkee daal di commencé nooy jëkkër jooju dootul safar jëkkër jabar lay takk yàlla bind jigéen nooyal ay cëram nooyal baatam nooyal ay përëgam amul ay mustaas amul sikkim kàddoom wara bu ko defee mu daal di nooy ndax nooy moo baax ci moom gis nga nooy googu bu ko jigéen amee day tas jabar waaye su contraire bi amee dootu tafati jabar jëkkër lay tas te lépp jigéen ju tas jëkkër du mën a sëy ndax boo nuroo góor rek ñaari jëkkër mënta am ci kër gi ndax kii day nekk jëkkër ci jëmm yow nga nekk jëkkër ci melokaan kookoy nooy moom it am na fànn bu gën a yaatu dana ñëw insha allah ci bind yi beneen bi ci des mooy mooy ah ñàkk jom nee naa la ñàkk jom buñ ko waxee dañ laa xam waaye bu dee ci kanamu borom kër aw tagg la bépp jigéen joo gis muy jéem a am fulla wala jom ci kanamu borom këram kooku nar la sëy maanaam bu doon melokaan la waxoon ne góor teel na koo xam balaa muy takk jigéen juy jéem a am am lu jom wala fulla ci kanam borom këram bu doon xam nga ko balaa nga koy takk moom doo ko takk parce que loolu jigéen a say kër ñàkk jom ak am jom ay melokaan la am jom nag mooy am looy rus am looy jom am looy bañ am foo bëggul ku la ko gis ah sàmm sa sa sa sa bopp ba bu la bu la bu la kenn daya dal yooyu waaye yii yëpp nga doon daw te beneen kër moom sañ na ko ci yow sag am fulla sag am fulla fekk jërul sa borom kër di ko xam sag am faayda sa borom kër jërul mu koy xam na ko ñeneen xam nag moom sag nangu sa borom kër bu ko xamee xamaale sag nooy nga boole ko melokaan woowu ñu tuddee ñàkk jom da ngay nekk jigéen bi mën a def loolu nag bi ma seetloo gis naa ni des na ci barab yu mel nii wala jigéen ñu mel ni ñuy génnee ci barab yu mel nii beneen bi ci des mooy te boobu ñaari catégorie yi ñëpp a ko bokk mooy sëy ci boppam dafa am gaab la bu ami bànqaas bii bànqaas sa jëkkër a ko moom bee day goroo ko moom bii këru famille ko moom ma seetlu ni léeg-léeg jàmbaar mën naa góorgóorlu sax ba digganteem ak borom këram baax waaye digganteem ak ay gorom du mën a baax parce que société bi ni muy dundee moom du ko taamu ah bu tàmbalee ca suuf élémentaire dem moyenne secondaire defe naa noonu la su jubee mu jóge fa dem ba lycée dem ba université la muy tàmm mooy li ci ëpp beru wéet ak sama yëf ak lii sama yëfam beru ak wéet ak lii sama yëfam beru baaxu ci wéet baaxu ci lii sama yëfa baaxu ci yooyu nag boo ko bëggee ëndaale ci këru famille léeg-léeg da ngay gis ku am problème wax la ay problème ba noppi waaye da ngay sentir ni moom moo yóbbee boppam problème yi parce que dafa am lu ko sëy di laaj te joxu ko ko ba noppi bëgg yëf yi jàpp yii daal ab junj la woon ndax seen barab bi moom daanaka neexu la concentré woo tey nu yëg ni yii dama ko doon def comme xaddima rek muy introduction ngir nu xam ni bunt biñ na ma dugg bunt la bu am solo boo xam ni njàngale yu rëy mi ngi ci yii day aju ci njàngale alquran yee aju ci njàngale yu sunna yee tënku ci waxu borom xam-xam yi yee ci des nag selon expérience yi nga xam ni ay nit dund nañ ko nga xam ni lamb daj lay doon te jàpp naa ni loola dafay taqrib maani muy jegal maanaay bañ gën a xam kon loolu la ñu jàppoon ni mooy nekk sunu bind ak tey bu ko defee loolu ma leen junj tàmbale ko ca labat ba tas ba eddawu yooyu yëpp ay njàngale lislaam la ak naka la ñuy téyee incha allah bu fekkee borom bi mi nga xamante ni ñoo ngi koy ñaan moom suñu borom mu defal ñu tawfiq ak cës laay ak ndës laay ak ndëgër laay ubbi suñuy dënn leeral suñu dënn yombalal suñu làmmiñ ak suñuy dégg-dégg defal lu baraka ndax barke lu mu ñàkk rek loola du am njëriñ ba lii mu nekk ay njàngale yoo xam ni dafay nekk clé pour tijji beneen bunt buy tax ñu am paas bu bees ngir jooyanteeg soppar ñi yu bari yu am suñu biir tey loolu moo nekkoon dars bi incha allah bind bii di ñëw nag xam naa dinañ mën a soobu nag ci mbir mi dëgg-dëgg ci leeral lan mooy sëy ak ngëneel yi jërëf doo ko tàmbi nag ci naka la ñuy tànnee borom kër nu ñuy tànnee soxna di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw bu nekkee am na lu ñuy leer lu wala yu demee nag maa ngi ci bu nekkee dafa am lañ ay laaj yi mën nañ ko indi ñu xool bu ñu ko xamee tontu ko
salaamaaleykum wa rahmatulah te dafay laajte ndax mën nañoo nangu ñoom jigéen ñi seen jëkkër dóor leen wala mu saaga leen door a saaga teel na di waaw loolu rek la waaw keneen ci am na kuy laajte mu ne ndax bu ko jëkkëram aayee mu dem liggéey lu mu war a def
li mu war a def comme waray liggéey jëkkëram tere ko mais nan la war a def dafa war a dem wala dafa war a dégg ndigal jëkkër
ala kulli xaal laaj bu njëkk bi moom door saaga moom teel na moom comme dañuy doog a tàmbali door saaga moom yàlla yàlla musal na ci moom bu mu ci am insha allah waaye saaga moom déedéet moom moom baaxul maanaam gor du saaga waate te gor kenn du ko saaga kon borom kër gi liñ def njuumte la waaye jigéen it wër ci jil borom këram bunt moom koy saaga ndax gor kenn du ko toroxal gor kenn du ko saaga waaye gor du toroxalaate gor du saagawaate ndax lislaam da koy tere kon su boobaa bunt boobu moom fexe ba du am moo gën su amee rek nañ fexe ba mu tëjee dóor nag moo tane sax saaga ndax dóor ñëw na ci njàngale lislaam donte nag bu ñu fàtte ne yonent bi ko jàngale daawul dóor foofu nag bëgg naa ci leeral benn njàngale bu am solo ci lislaam te yàlla yi ci kawoon góor ñi déggaale ko mooy lislaam may na la nga dóor sa soxna waaye ki doon jàngale moom dund na ba faatu da koo jàngale waaye jëfewu ko. te góor ñi li tax ñuy dóor seeni soxna moom def nañ ko lu jar mu dóor soxnaam loolu nag góor ñi ñoo ko moom war nañ koo dégg ji góor ñi li ñuy li jigéen ñi def bañ leen di dóor yonent bi def nañ ko sallallahu alayhi wa sallam wala lu ñu toll te dóoraatewul comme jàngale na koo pare danoon andi solution kon dóoraate ñàkk pexe tax nit ki di ko war a def ànd ak nag njàngaleb lislaam la am lay teggin loolu insha allah dana ñëw ci bind bi xëy na ñu bañ koo yàkkam waaye nag bu bañee mën a nit ki daal yar ko ba du ngeen yegg ci dóor looloo gën wallahu aalam beneen bi mooy jigéen bu ko borom këram teree mu liggéey yi liggéey yi mën naa nekk waaye ci kaw ay sart sart yi mooy nit ki ni ci déggoog borom këram li muy liggéey lan la ndax liggéey ba dagan na ndax amul lu lislaam di tere bokk na ci sart yi mooy da cay am aajo waaye borom këram ànd ca léeg-léeg nag borom kër mën na caa bañ a ànd waaye circonstance day maye jigéen ji dem lu waral loolu bu fekkoonte ne dëgg la borom kër nag faw mu ànd ci nga doog a liggéey ndax loolu ndigalam la war a doon loolu ndigalu yàlla ko benn kon dina ñëw ci bind insha allah waaye tey bu fekkoonte ni ku jigéen ki dafa law moog borom këram ba amuñu moom mu am possibilité mën a dem wuti wala way juram loolu ba pare te mënu koo dimbali te jëkkër ji mënu koo dimbali mu am possibilité mën a dem wuti te yeneen sart yi daje am na ci borom xam ñu war day dem ndax lor baay tax waaye bu yooyu amut nag moom faw nga naxtaan sa borom kër ba am ndigalam wallahu taala alam waaw bismillah
mu ne euh, jigéen nan la mën a def pour nooy mooy bi ñu jàng moom
waaw loolu dama mat naa laaj moom moo moo moo moo gën moo gën dóor ak saaga bi ak euh, keneen ki mu ne ndax euh, jigéen mën naa euh, jugee kër jëkkëram dem ci kër yaayam wala kër papaam ci temps bi nekk bi nga xam ne dafay jàng ak euh, su fekkee ne jëkkëram euh, may na ko ndigal maam yaakaar ne jigéen kër jëkkëram dem kër yaayam ci la jàng di gën a wala kër papaam ci la jàng di gën a mën a yomb ci moom même su ko jëkkëram digal mën naa def
ala kulli xaal nooy aw melokaan la woo xam ni ñenn ñi yàlla moo leen ko bindee loolu ngeen bàyyi ci xel nooy ak nangu ay melokaan la yoo xam ne yàllaa ko bindee ñenn ñi même buñ defut benn effort nooy nañ ba noppi même buñ defut benn effort nangu nañ ba noppi loolu nag am nañu ko yàlla baaxe walhamdulillah ci ko am kon na sant yàlla bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne nooyu nanguwul loola seeni melokaan la waaye nañ góorgóorlu mën naa dañ mën naa dañ jamono yi paase am na ku ma jox ku ñuy waxtaan ci jafe-jafe yu mu am ba mu waxee ba yeggal ca la ma dégg àtt ca dama ne ko yaa am dëgg moom ku jigéen bi waaye nag balaa ñëw na fi dinaa la dénk ne li ma li ma jàng ci sa ci sa discours mooy nooyoo donte nag nangu naa ni yaa am dëgg waaye nag nooy moom defoo ko li ma ko xamal ne dafa feeñ ci histoire bi ma doon daan ko te di ma dégg ma déglu dafa feeñ ci say kàddu yëpp nag kon am dëgg tax sa dëgër kon nit ki bu yëgee nooyut bokk na ci jumtukaay yi muy jëfandiku mooy njàngale alquran ak sunna li ci yàlla jàngale ko yonenteem mu jéem ci ak di ñaan yàlla mu dimbale ko ca benn bi ci des mooy am na ñoo xam ne yàlla baaxee na leen melokaanu nooy gis nga ñooñu di waxtaan ak ñoom léeg-léeg lu baax la ndax léeg-léeg nga nangu bëgg aju ci kaw asamaan sa ci loo xamante ni am na koo xam ni da koo léeg-léeg nga bañ ba aju ci asamaan sa am koo xam ni gënoo ko te nangu na loola ba jaaxaan ci suuf jàpp naa ne loola bu ngeen doon waxtaan bu yàggee am na jeexinta bi muy def ci sa xol beneen bi ci des nag bokk na ci mooy lu mel nii laaj kuñ jàpp ni kii kat xëy na xam na ca dara mu wax ma ca yooyu bokk na ci yi dimbali ci wallahu taala alam jigéen ndax mën naa féete kër yaayam muy jàng waaw waaw mën naa féete kër yaayam ci kaw ci charte mu déggoo ci ak borom kër ndax tey moom tey la tudd te tey moom bu mu xëtiyaa mooy génn sa kër dem beneen kër ah nit ki nag bu ko borom këram mayee mu féete fa muy jànge mbaa kër way juram mbaa barab ya nga xamante ni fa la mën a nekk ñaan ci ak déggoo loola moom incha allah dara newu ci waaye nag dara newu ci waaye na bàyyi waale xel ni buumi jokkoo yi war a dox ci diggante nit ak borom këram ci miinante mën naa def te fekk loolaa la ko indi xawma li wala ak ay wolof la am de jigéen ji war a nekk ak borom këram bis bu ne te nekkut ak moom bu ca dégg borom këram lu baax la incha allah te loolu mooy sart ba waaye nag boo boo góorgóorlu dina am yoo ñàkk mooy buumi jokkooy mii miinante ak gën a toppante boo ko jegeyante dara melul ci moom kon nag su ma nee bañ a am moo gën su mënta bañ a am mu néew gëj a gisee di bañ a am ak yu demee noona yooya nag yeneen i mbir la wallahu taala alam bu jeexee nu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi barab bi tey moom dara ah
ah waaw mu ne par 15 jours incha allah ndax waaw par 15 par 15 jours lañ koy def ñu def ñu def benn fan par exemple dañ cee dal soxla yi la war a def.
waaw kon ñu bàyyi daal ci loolu bind bi amul samedi bu jot ndax fa ñuy jóge dafa sori te yàlla xam ne mbokk mi bi ñu waxee daal sa gàntaloon nan ko ndax suma jot mayuñu ko waaye nag yu nekkee ilxaax insisté ci aajowoo bu ñu yëg ni aajowoo nañ ko te xëy na bi ñu wutee keneen jàppandiwut ñu ñëw ngir jéem ko kon ñëw ñu pour def ko sax waaye dañoo ñëw pour doon ko jéem moo tax kon fukki fan ak juróom yu nekk lay am benn yoon kon samedi ji am na bii di ñëw incha allah du am ba ca topp lay amaat mën naa tàmbali dix heures xam naa benn waxtu mën na caa doy incha allah defe naa loolu rek la woon.
حبيبتي أنت زوجتي